fekkee yaa ngi dégg. waaw maa ngi dégg bu baax. yaakaar naa yéen ñoo may sonal rek. yéen ngi doon waaj combat seen digganteeg naaru naar sokaas mu waroon am suba incha allah ci dimanche bi. waaw. combat bi ñu dégg nii combat bi mujjee naa yàqu bi nga bi nga déggee loolu. waay lu mu la def. combat bii mooy ñetti yoon mu yàqu ku waan. waaw tamit. Mhm. xam tamit di waaj def si sa xaalis. Mhm. bañ ne ay suba la mu yàqu neexul si xol. te nga ne làmb mooy sa métier mooy sa liggéeykaay. Mhm. dëgg la. tamit ñun politique wu ñu quoi. waaw ñu soog ñu kenn politique. allo. Laurent waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw ñun politique wu ñu ñun soog ñu kenn politique. waaw. comprendre nga. yee ñun nañu baax suñu làmb quoi. dëgg la dëgg la barki leeru alxuraan. tamit di waaj doon xale bu ndaw ñëpp yaakaar si yow ngaan. trois fois làmb di yàqu nii. dëgg la. li moo tax yenn mbëri buñ génnee sa xoola dem xooli ci leneen lu bokkul ak làmb. dëgg la allah ji fal. ndax ñoom ñun ñuy xañ suñu liggéey ñoom ñu ngi xëy liggéey ñu nekk ci làmb bu yàqoo nga gis ci àdduna lu garaaw barki allah ji fal la ñu ngi lay dégg. waaw mais daa neexul ci xol ku waa xale bu ndaw di waaj trois waaye trois dara ngir ñu jàpp ko te sax buñ ko taxawalaatee duñ ko jox avance duñ ko jox dara. Mhm. tamit ñun waaye yow li neexul waa. dëgg la xol lay waxee mais mais ani ani ani ani Liss Ndiago. Liss mi ci biir kër gi Liss daa mën a wax ak. waaw léegi lu muy wax ndax instant moom xamatul sax lan la war a def. dëgg la dëgg la. daaru action yi ñoo xonat loo nit mu dem dund ci dafa dul noonu te du ko jar. dëgg la. barki leeru alxuraan. Hmm. mais politique bi dafa dugg ci làmb ji politique bi politique bi dugg ci làmb ji yàq yu bari ci làmb ji noo ko gisee. waaw yow làmb maanaam làmb ak politique àndul. Hmm. waaw ñoom politique yi dañuy liggéey ñu dañuy liggéey waa. Hmm. barki leeru alxuraan. dëgg la. mais lii dafa ñaaw sax si gis-gis ak déggin déggin gaan ay ay la jàpp nañ ci. waaw yoon. ñu ne la yow booy bëre sa sa rakk bu dee wala sa mag da ngay bëre ji. Hmm. comprendre waaw. léegi bu politique amee yow coo am doo doo doo doo bëre quoi te ñu ne sa rakk bi nga bokkal moom du bëre ji quoi. Hmm. non lii dafa ñaaw quoi. am na solo ay Liss Liss moom nu mu dundee lu mu ah. dundee moom. parce que Liss demoon demoon na fi Gambie waajal la tamit ay mois. mënoo leen to barki allah aji même làmb yi bu jóg. Mhm. ñu ngi lay dégg. ñu jàpp on a teraan bi jëm yàquwaat. Mhm. kenn yàqu-yàqu lii dafa jarati. dëgg la. jaratu. di bëre. Laurent di waaw moment yi ñu toll nii moment yi ñu toll nii mbër mu war a bëri ñun suba la combat bi moment yii nii si la si si yan situation la doon nekk. si yan la la war a nekk moom jamono ji. moment yii nii ñu wax nii mbër mu war a suba la combat bi si yan la la war a fekk mbër mi si yan. leeru mhm. alxuraan. Mhm. billahi alors lan muy maa dégg barki allah ji pot bu événement bi di continuer sax jour falaay falaay combat mais du ay làmb yii nii. mais dama la Laurent. làmb Sénégal daa ah, pour. Laurent. Laurent. Oh. allo Laurent. mu ngi lay dégg. maa ngi lay dégg. waaw man la moment yi ñu toll nii laa wax ñu ni suba la combat mbër di bëre mu war a bëri ji suba comment moment yi ñu toll nii ci lan la fekk mbër mi ci nan waaye si sa bopp ndax yow moment yii nii yow li nga li nga war a toon am yëpp mënoo too ko am waaye instant dangay nekk si maanaam du tub nga dem ci yëpp. Hmm. ok waa si. ah. dëgg la yee yow yow yow maanaam yow mo yow moment yii nii yow moment hmm. ko. ndeysaan. mais noo gis loolu. noo yaakaaru tout tànk yi ñii nii waaj. mais loolu noo gisee jiit ay yéeg ñëw toog fi gaan mu mais noo gisee daa xaw a neexul quoi. mais noo gisee ñi nga xamante ni ñoo jiite làmb ji guddi ñu toll nii muy see bi seen taxawaay ci làmb ak li nga xam ne mooy politique bi. nice. Laurent Ndiago. allo. allo Laurent. waaw. taxawaayu CNG ci mbir mi noo ko gisee. allo. bu fekkee Laurent da nga mën a déplacé wu ñu mën a wax ak yow dégg-dégg bi xaw a neex. allo. bu fekkee waa di nga mën a déplacé wu. halo, da ngay déplacer wu rek bu ko defee dégg-dégg ba xaw a neex allo yaakaar naa ni euh, dégg-dégg bi moo xawul neex allo Laurent euh, Babacar noo gisee kàddu yi nga xamante ni moom njaago mu daw bi jot na koo wax ci digënté mu magam ak magam doon wacc combat digënté mu nar sokas combat bi ya ko gis nga fim ne xol lay waxee. waaw Mouhamed. Mhm. neexul ci xol. Uh-huh. nga nga and ak uh, sa mag muy wacc bis. Mhm. ñu wacc ko ay bare bare bare mu daal di yaqku mhm. yaakaar na ni bi mooy trois fois combat bi di yaqku ci mbeur mu ndaw mbeur mu ndaw ak ni metté méttee. yaakaar naa ni lolu nakar mu ko gëna metti. bo demee jamm ko bi ko waxé yaakaar ndaw ñu bari tass nañ. waaw

wàllum politique la. Mhm. kon dañuy ñëwaat ci lañ doon wax sànq ba léegi rek. sport ak politique lamb ak politique. Mhm. yaakaar naa ne ànduñu. ànduñu ànduñu waaw. Mhm. sànq laa woon lis moom jotuma ko xëy na moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla li muy dundu Euh, metti na loraan lañ ma noonu jot jot nañ ko am na lu mu ci jot a expliqué donte ko sax dégg-dégg bi euh, moo xawul neex waaye ñu jéggal ci lool bu baax a baax mbokki yaakaar naa ni gis nga ñi fi jot a woote ñëpp te ñoom ñëpp ci jour combat boobu la ñu war a bëree ànd ak xar nag bu rëy ndax koo xam ne yow euh, suba nga war a bëre te ñu xëy ñun la combat bi mënul am loolu dafa dafa doy waar dafa doy waar trop mais mbokk yi ñu leen di bégg bu baax a baax a baax. Mm-hmm.